à yow ci sa ci sa ci sa intervention yëpp ci ay texte nga koy wax ci yooyu nga koy teg mhm. loolu mooy légalité mhm. mais légitimité bi ma nekk par exemple non ci laa bëgg ñu taxaw ci parce que man pour man mhm. légalité bi am na solo waaye légi légitimité bi itam eh moom en tant que président de la république ah, bu ñu génnee le 2 avril mais loolu est-ce que du poser problème est-ce que du ñu am foofu comme ni ma ko waxee keroog benn ex président non est-ce que vous vous êtes des sénégalais jàpp ni suñu constitution mooy suñu constitution. non lool mooy li légal mais non non xam nga boobu non loolu. attends xam nga est-ce que non non monsieur Wane xam nga loolu dégg naa ko. wax nañu ci parce que boo ma posé question. <laughs> voilà mais jaaxal ça veut dire quoi. non xam ñu ni c'est une dérogation qu'on fait. ça ne change en rien le nombre de mandats. c'est une dérogation bu fekkoon mosul woon am ñu mën ko wax dafa mës a am fii changé wul fi defuñu fi dérogation ba yokk les députés mandat député defuñu ko fi. c'est une dérogation tey ñu def dérogation dafa am temps un temps limite. non au-delà non yokk mandat député yi. am loolu bokkul ak mandat président. non non c'est une bi nga xam ni dañu ko verrouillé. non non ci article euh, cent cent trois ak. article sëñ bi euh, cent trois voilà. bokkul ça n'a rien à voir déedéet mën nga ko yokk fi ci réew mi lu ne. Eh, lu ne par exemple am na foo ko mën a jaaree du ñuy wax loo xam ne xamoo ko. d'accord ok d'accord allez non non pas du tout allez-y d'accord y sur la constitution la loi constitutionnelle a été il y dérogation mhm. mhm. a prolongé le mandat des députés mon frère il faut lui dire c'est vrai ou c'est faux dès l'instant qu'il y a une possibilité de dérogation, c'est la que le PDS a visée dans son article. Mais ça ne change rien. le nombre de mandats et tout consort. liñ ko doog doole nag tant que loolu jeexul di ba décembre 2015 xam nga 15 15 décembre Macky Sall moo fi ne ñu bañ ko mu ko. légitimement légitimement bu fekkee conseil constitutionnel adopté na. ok c'est le conseil constitutionnel dit que il n'est pas compétent. là-dessus mais à ce moment-là parce que quand même y a une la la constitution. comme yaa ngi xaar conseil constitutionnel. est-ce que jàpp nga ni fim mu nekk nii. bu ñëw ci sama jigéen li mu wax léegi. di moom Macky Sall lan la def ci constitution bi lan la ñàkk ci constitution ba nga xam ni. nga ni man dafa dafa dafa jalgati suñu constitution pas du tout ça n'existe pas ça n'existe pas au contraire il considère que le conseil constitutionnel jusqu'à preuve du contraire est légal là. il l'a pas changé. Mm-hmm. on le changera pas. Mm-hmm. le temps que ñu def ñu def con euh, seen com seen commission parlementaire ba wax ni lii am na wala amul tant que amul nag wax dëgg yàlla day dox di doxal mais loolu la Macky Sall loolu def en tant que président moom moo yore. ci guy gi tax. ñuy def la régularité des des des trucs dire maintenant nag dans des perspectives comme quoi que Macky Sall dafa bëggoon <laughs> du lii la bëggoon lee la bëggoon ah ça je laisse ça à mon frère euh, euh, Montey parce que euh, xelam xam naa ni ku ku ku mënoon philosophie la ak ku mënoon truc de récitation xëy na récitation lii wóor mooy. Macky Sall jàng philosophie de man chimie laa jàng. waaw man xëy na parce que boo nee Macky Sall dafa doon def dafa doon xaar ba ki sogaa du lii la bëggoon nangam nangam fii c' la c' est l' assemblée qui a qui a proposition de loi est une proposition Macky Sall ana yoonam foofu ana yoonam il a des des éléments yoo xam ne ñoo bokk parti ba ñoom ñoo moom Benno Bokk Yaakaar ak ak ak wàllu ñoom ñoo ko def la ci yoonu Macky Sall lu ci yoonu Macky Sall xanaa léegi du bu bu jusqu'à quand c'est le président de la République il faut le respecter. Mm-hmm. il fait ce qu'il veut regarde. en fonction non par rapport à la constitution. <laughs> par rapport à son devoir. oui non par rapport à son constitution je ne pense pas qu'il puisse faire autre chose que ça. Uh-huh. c'est la constitution. qui lui donne les pouvoirs qu'il a. Et c'est pourquoi, euh, le, en septembre, s'il est là, s'il veut changer l'Assemblée, il va le changer. Mhm. Pourquoi pas Maintenant, le problème qui se pose, c'est que au niveau management, je veux parler, quand on une situation euh, actuelle, mhm. pour dem dans une situation donnée, mais fatalement, on fait une prise de conscience basée sur des valeurs. Il y a un fossé entre ces valeurs et le plan qu'il faut mettre pour mettre des mesures moom la ñu defoon ci dialogue bi ñu jukkoon def moom laa doon wax sax defoon nañu ko man c'est moi qui représentais le PDS ak May Ndiaye au niveau du dialogue mais mooy code consensuel bi ñu am nii foofu la jógee bu fekkee ne nag léegi buggu leen ñuy wax ci affaire code électoral parrainage bii ngeen wax ni baax nag baaxul ñun gis nañu ne xëy na am lu ñu ci wax lu lu lu loo xam ne war nañ ko mën changer mais ci dialogue lañ ko mën def d'accord d'accord merci ku ñëwul ci dialogue ba nag moom wax dëgg yàlla li ñu fa dogal rek nangu ko. Maimouna lu jëm ci dialogue bi maa ngi ciy dégg sax ci ay rumeur que Ousmane Sonko moom joxe na ci euh, <laughs> d'accord am okem ci loolu dégg nañ ko am na amul euh, am na ñoo xam ne ñu ngi wax lu jëm ci loolu mais dialogue bi en général ndax jàpp nga ni mën na régler problème mu jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci ëllëg yu lëndëm yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci wàllu politique. waaw Pape Ngagne euh, di wax monsieur Wane rek ne ko ku mënta wàññi mënoo yokk 2014 président Macky Sall dafa bëggoon dafa waroon wàññi mandat parce que daf ñu ko digoon bañ koy fal 2012 ni su ma faloo damay wàññi sama mandat bii jëlee ko 7 ans yu di ko 5 ans wër àdduna bi yëpp wax ko puis de 6 fois dans le mu ñëw conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne ko mënoo wàññ noonu ñu ko waxee mënul wàññi noonu la mënut a yokkee. yokkul c'est-à-dire que président mandat se calé. oui. li tax ma ne la respecté wul conseil constitutionnel. mooy conseil constitutionnel li nekk prérogative am. Hmm. gis nga nit li mu moom boo ko foqatee mais respecté wu ko. mu ci parole muy ci alal mu ci compétence mu ci rôle. lan la ci nangu. compétence su conseil constitutionnel. Hmm. moom képp moo am sañ-sañu. wax ci mbiru mandat ak mbiru élection du président Macky Sall mooy toog parce que loolu ñu ko may benn président du du parce que Macky Sall lañ ko mayul c'est-à-dire que am mayuñu ko benn président le mandat est verrouillé pour tout président c'est pas parce qu'il s'appelle Macky Sall. vous êtes juriste quand il s'appelait Abdoulaye Wade aussi c'était la même chose vous êtes juriste. quand il s'appelait Abdou la même chose bi muy tudd Senghor c'était la même chose même que Senghor. defoon na ko entre en 1967. Euh, pour de pour de raisons de réforme constitutionnelle ñu yóbbu ko ba 68. xam nga loolu yàgg. Mm. mais bañ ci jógee ba léegi dañ ko mayeetul mbindeef parce que nit matul te mënuñu may ku nekk au pouvoir ngay am sañ-sañu di di di yokk ki wàññi mandat ñun bi conseil constitutionnel waxee loolu mais d'accord ñu woon mais dañ ko ko nangul parce que c'est le conseil constitutionnel te dama ni conseil constitutionnel su génnewee une liste dañu ne la liste elle est définitive c'est des règles de jeu. Ousmane Sonko mi ngay wax mais bokkul man moom laa àndal. te dama xeex pour mu bokk mais bu ma demee ba conseil constitutionnel ne ma bokkul munu munutuma ci daal. nga jàpp ci Basirou. damay jàpp ci Basirou wala ma jàpp ci keneen. parce que aw ma pexe. non yow ci keneen ci Basirou. waaw dama ni wax pour wax rek ne. aw ma solution. parce que conseil constitutionnel moom moo yor le dernier mot. 2012 mhm. dañoo xeexoon Ablaye Wade. man dama bokkoon ci 2011 2012 ñu ko xeex. mais bi ñu nee li may dégg ci Ousmane Sonko bokk ci xaaral dinaa ci ñëw rek xanaa dinaa ci ñëw rek gis nga 2012 bi conseil constitutionnel ne Ablaye Wade mandatam bi bokkul ci décompte bi am na droit compétir mais ñun ñëpp dañoo jàpp ci yàlla dem élection. malgré que quinze personnes dee woon nañ. ah nañ déglu conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel moom mooy décidé. conseil wax na ba pare wax na ba pare def na la ah, liste définitive. il faut il faut arrêter ça. beneen bi ci topp mooy. beneen bi ci topp mooy par rapport à la proposition. beneen bi ci topp mooy moom dafa wax léegi. xam nga li tax ma ne li tax ma ne PDS li tax ma ne PDS dañu am responsabilité moom mii daf ko waxaat ndax dafa ni waa wallu ñoo voté. parce que il se cache sur ça loolu la ñëpp di wax kay. yaa ngi dégg il sur ça jusqu'à l'extinction du soleil l'histoire va retenir. que taxawaayu waa wàllu ndax ñoom sax ñoo ko wax. moo waral Sénégalais yi le 25 février du ñu voté. Mm-hmm. am nañ ci bon bien fondé ou pas loolu beneen débat la. bien fondé. quand mon frère me parle d'histoire xam nga l'histoire nag heureusement que ñun on est des de l'histoire te man PDS ñi fa nekk respect la am ci ñoom. bis may njëkk a dugg PDS maa ngi fa fekk Tata Ndeye Gueye Cissé mu ngi toog di seetaan injustice bi ñu tegoon Karim Wade moo ma fipp ma jóg ànd ak sama doom jóg du Decroix mu ngi toog munoo ko waxal lu amul il est de AJ/PADS mun ma mën a yóbboo PDS. mi ñuy xeex PDS 2011 2012 danoo tàggu woon kenn mm-hmm. te biñ leen di sot selti sotaluñ leen parce que PDS ñoon tudd. c'est parce que vous étiez victime d'injustice et d'acharnement ñu gëm ko. d'accord ñu indi à vos côtés te mënuñu ko regretter. d'accord maintenant bu ñu jógee il me parle de dialogue. waaw comme si. Mhm. ñu ngi door a wax waxi dialogue. Mhm. je rappelle ici nag man dialogue yëpp fii la ma fekk. Mhm. gis nga le dialogue de 2016 ñun FPDR ñoo ko togg ak Manko dem dialoguer Karim Wade di génn de prison mais mon frère Ndiaga 2017. PDS dafa boycotté la dialogue man mii ci laa demoon mooy dialogue bi ñu doon woowee correct ñoom Modou Diagne Fada Aïssatou Tall Sall Seydou nuru Ba dekk ci 2018 bi ngay wax PDS dafa boycotté Karim Wade d'accordul dem ci dialogue boobu donc quand ça arrange les gens ils vont quand ça les arrange pas ils ne vont pas faut pas venir ici on peut pas refaire l'histoire acteurs politiques yi ñoo tàmm loolu bu ñuy dialoguer dañ koy sax wax dañuy dem dialoguer pour régler suñuy problème du waa ji moo la génnee sénégalais xeexal la mais yow par un raccourci nga dem dialogue toog waxtaan ak moom mu dugalaat. xalaat nga bokk ci dialogue bi pour Sonko génn ci donc moom na la loolu. dama xam nga man personnellement. su ma position waaw gis nga ñun man Yewwi Askan Wi laa bokk. Mhm. comme li ma la wax man 2017 ba opposition bi yëpp boycotté man damaa demoon dialogue. ok gis nga commission politique 2018. Mhm. ñun dañ ci demoon. FRN da cee dem 2019 dañoo am délégation. yónni des gens au dialogue ñun on a jamais boycotté les dialogues ah faut pas venir ici wax nañu loo xam ne amul 2023 bii dialogue bii mujjee déjà nan ngi commencé damay wuy dialogue xamoo luy terme de référence président day toog rek du mu neex ko mu ne venez on dialogue yan kon lan moo taxoon demuñu dialogue ak moom un homme qui n'a pas de parole ñun duñ jaloge ak moom parce que président Macky Sall li mu waxante ak opposition bi ba mu toogee ba léegi defu ci dara heure bu dajalee nit ñi def dialogue génn ci li ko intéressé li ci des mu tegee ko ne. man sama position du ngeen dem mooy force citoyenne. en tout cas force citoyenne. ñun li ñu yóbbuwul woon. dafa leer te gëm naa ni damay daaneel. gëm naa ni président Ousmane Sonko ay valeur moo ko yóbbu fee mu nekk. amul benn problème personnel ak président Macky Sall am ko musul nekk quelqu'un qui est contre le dialogue mais dafa li mu wax dafa leer man duma dialoguer un couteau sous la gorge doo rey ay xale. plus de trente soixante personnes. mois de juin damay wax doo rey ay xale. jàpp ko suba war a ubbi war a ubbi enquête parlement war a ubbi enquête ñu xam xale yi lan moo leen rey. <laughs> defuloo ko tëj ay nit plus de mille personnes ci kaso bi après nga ñëw ne kay ñu dialogué mais pour la mémoire de ces gens morts mais pour ces gens qui sont en prison mais pour tous ces traumas là comment on peut dialoguer dans certaines conditions <laughs> président Ousmane Sonko bi muy ne dafa teg ay conditions yu leer musul nekk un anti président Macky Sall nag li mu tàmm mooy damay def li ma bëgg mais ñëw leen ñu waxtaanee ko bu ko defee mu am ay aménagement et après 2016 dafa ne woon waa PDS la te ñun ñii xam nañ man leer na ma parce que PDS unité valeur rek ñoo fa ne gisa nga 2016 dialogue bi ni mu ñëwee ci ñun gis nga ki proposé woon lettre bi ak na mu ko proposé woon kooku tey deful ni kii transhumé na bu yàgg dafa am ay nitam mooy li ngay wax complicité ñoo xam ni ñoo koy bindal ay lettre moo tax njaga vous êtes dans une mauvaise posture parce que ngeen def nii dafa am ñeneen ñu ko ko defaloon démb ñoo xamante ne démb bi mu bëggee def ses forfaiture ci ñoom la jaar pour légitimité pour ñu mun ko comprendre même report u élection locale mais ay nit ñoo ko proposé ñu ne non c'est l'opposition qui l'a proposé parrainage bi c'est la même chose ci réunion la ñu toog ay nit ne non il faut ñu yokk ko def ko zéro virgule nangam le président Macky Sall de toujours des leviers moo tax tey mënu leen génn ci loolu maintenant ay mbiru dialogue on ne peut pas dire une chose et son contraire hmm. yaa ngi ni dégg sa frère mu ngi wax nga koy coupé naan ko amuloon ci preuve. mais oui waaw man de defal ndànk rek. bi mu tuddee Amadou Ba bi mu tuddee Amadou Ba man c'est la première fois sama dégg. yow naka nga mën a waxee c'est la moom ma défendre Amadou Ba <laughs> sax man sax man sax xam nga waxuma défendre waxuma Amadou Ba mais xam nga lu may wax. yow nga ne moom amul preuve ci accusation Amadou Ba mais pourtant ñàkk preuve terewu leen ngeen ngeen ngeen arrêté élection yi. Mm, mais ñun amu leen preuve lañ leen wax. non du du mais donc yow amul ki kii de corrupteur. dama ne danga may déglu ma leeral sénégalais yi déglu danga may déglu ma leeral. dafa wax lu mu wax parce que moom ñoom tëbuñu topp gis nga parti démocrate seen dama ni seen rôle. bëgg Karim Wade bokk. wallaay maa leen ko gën a bëgg ndax xeex naa ko 2019 ba sonn. te ba léegi damaa gëm dafa war a bokk. déglu rek mais moom ñoom su ñu amee seen seen fond bind seen lettre teg yow nga ne da nga far ak Amadou Ba nga ne non waru ko wax parce que amul preuve mm-hmm. ñun dañu ne mais il est présomption d'innocence ñun kay kon ñu ak yow ñoo bokk li ñu wax mm-hmm. parce que dañoo gëm ni Amadou Ba il n'est pas euh, un corrupteur mais dañu gëm ni itam conseil constitutionnel ce ne sont pas des corrompus mm-hmm. mais yow mii pourtant di défendre ah yow mii défendre position PDS mais défendre loolu mënul nekk on peut pas vouloir une chose contraire mm. à partir du moment où nga d'accord que la requête est que waroon nañ ci dàq élection mooy d'accord nga ni. y a anguille sous roche. ne pas bu bu leen nar a normal xelu Sénégal euh, Amadou Ba moom sëñ bi. Eh. bu bu ci bu ci sore quoi. Ah, yem yem ci foofu rek. donc juste pour wax ne. waaw ma ma ma daaneel foofu. rek juste pour wax ne. Mhm. ma frère léegi. nga baal ma quoi franchement on sait man man j'aime bien la constance parce que man dama gëm ni constance ci laa nekk bi ma dalee xeex ba léegi quel que soit nag. ñu tey ñu ne ma karimiste wadiste xalifiste euh, tey sonkiste je l'assume parce que je suis dans une même trajectoire mais kan nak nga mën a toogee fii naan ma Karim Wade mës ta jorbati nit kàddu mais Karim Wade dafa mës wax ci débat public bi mais ku opposé wul nooy jorbatee ay kàddu <laughs> mais ku ñëwul fii xeex mais may nooy xuloowee eh? ay la yowén mais nañu waxante dëgg d'accord merci beaucoup quand même alors, on se respecte un peu tout de même Ndiaga Ndiaga Ndiaga euh, ci ci ci dialogue bi man jàpp naa ni moom PDS ñoom amuñu ci veto man jàpp naa loolu. PDS pare nañ pour participer ci dialogue boobu man loolu laa loolu laa jàpp parce que sax am na kenn ci membre yi ku toog fii ne ku leen fa dëgg daanaka ne ko mas hmm. donc loolu féete na boor. ndax kon pare ngeen pour pour participer ci dialogue. dinaa dinaa ci ñëw Pape dinaa ci ñëw xam nga injustice bi mu jàppoon ne dañ ko teg Karim Wade ba mu ko doon xeexal. Hmm. injustice boobu tey la wàllu gën a aay.